jàmm ci biir réew mi foofee ca diwaanu Thiès réew mi bu Idrissa Seck ay responsable ak militant ne daal dañuy taxawal réew mi dëbbu ne ñoom président Macky Sall la ñuy àndal te candidature am ñoom itam dañ ko ciy jàppale frondeur yooyee ne ci jamono ji gis nañu ni président Macky Sall bilan bu positif la daal di présenté wu euh, ba tax na ci moom la ñuy rek euh, àndal topp ko ci lépp loo xam ne da koy def comme liggéey euh, ci réew bu Sénégal suñu ndaw Pierre Claver Pouy moo koy nettali ak Mbaytal politique waaye tamit ay militant dogo ki nga xamantene modi moo rewmi di Idrissa Seck ki len jiite di Bassirou Bokoum nekkoon fi ay jamono adjoint au maire bu commune bu Thiès Est ñom nak candidature Macky Sall dañuy défendre ci 2024 nak Ngor ci Seck mo ñu jël yóbbu ñu ci Macky Sall te quand nous sommes venus nous avons vu une vision qui dépasse Diamniadio allié bu mel non ndax dañ koy bàyyi bu dé dem na dem way ñun ñoo laaj conjuguer ko verbe lànk je lànk tu lànk il lànk ñoo. ñu xam ne dañu ànd ak responsable Benno Bokk Yaakaar yi nekk fii ci Thiès daal ngir défendre bi les candidatures. jël pétition bi fépp militant réew mi nekk montrer que la grande partie des responsables de Rewmi et des militants ils sont pour la candidature de Macky Sall parce que dañoo sonn ci yooyu politique bi ak mbiram Macky génn nag responsable ak militant yoy les tax nañu somp ay laaj kan mo nek ci ginaaw ndax Basir Bokum dafa woné yoon ngir ñeneen ñi nga xamantene nopi noppi nañu te bëggoon a génn ci réew mi